waaw gàmmu am na am na wute ci borom xam-xam yi dëgg la euh, benn wute man sax def naa article boo xam ne génne naa ko ci Facebook bi euh, benn wute bi euh, te mu ngi ci téere yi mm-hmm. mooy que yi effectivement gis nga juboo sax amul ci juddu yenn sax salaam kañ la mm-hmm. rabiul awal bi ñu nekk ñu bëri ci borom xam-xam yi wax nañ ni ci la judd mais am na ñoo borom xam-xam yi wax ne mm-hmm. amul benn tegtal bu leer ci ne ci la juboo jubóowuñ sax ci weer bi des ci at bi sax jubóowuñ ci loolu moo tax kon même jàpp benn bés dogu ci ne bés bi hmm. ci la judd sax effectivement nekkul ci téere yi loolu mën nga mën nga ci rafet njort loolu xam-xam moo ko indi loolu jarul coow jarul xuloo jarul dóorante ay yet parce que euh, noonu la tëddee ci téere yi man déglu naa al amin hmm. suñu Abdou Aziz Sy al amin hmm. déglu naa ko mu wax loolu man maa ko déglu ci benn vidéo muy wax ne juddu yonent moom wute yi daf cee bare bare ba nga xam ni semaine bi mu juddu sax ak weer bi mu juddu yooyu sax bëri na ay wute waaye ñun Hadj Malick li mu ci bind extra doy nañu extra mais loolu c'est normal mais xam kon kooku il est tolérant hmm. xam kon kooku waxul ne bu fi kenn wax ne ñëpp a juboo comme ñenn ñu ëppal ñi dañ koy defee kon loolu am na ci déjà mais ça veut dire pour man déjà que su amoon boobu importance hmm. kon du ñu réeree date bi parce que kenn du ñu réeree datu tabaski. Mm. ak yu mel noonu parce que dafa am tegtal yu leer. ñoo mm. xam ne fukkeelu fan ba la mm. kon pour man bokk naa si ñi nga xam ne loolu day wane ni loolu kon du cosaan. ci ci jaamu yàlla te jaamu yàlla moom sartam day leer. waxtu yu juróom ñëpp xam nañu waxtu kañ lay commencé fan lay jeexee ak lu ñuy def ci waxtu bi. ak lan moo ci farata yu sunna yi tey boo jëlee li tuddee gàmmu tey ji boo demee ci téere yi. doo fekk benn téere ba la naan gàmmu bis ba. na nga def lii def lii waxtu bii nga commencé et moo lay wan ne ko nekkul jaamu yàlla bu am cosaan. Hmm. loolu moom <laughs> wax dëgg yàlla hmm. suñu waxtaanee teg ko ci xam-xam. di nga gis ne jaamu yàlla bu nekk dama ay charte. am nu ñu koy defee. Hmm. nu muy tàmbalee et cetera. lii ñuy def yëpp actuellement ci gàmmu gi nii mën nga mën naa wax ne euh, gisinu ñi koy def la rek. mais duñ dem ci benn téere ne la bis boobu su guddi jotee à parti de timis ah. na nga def lii def lii loolu doo ko gis ci benn téere doo dem benn téere fiq nga fekk fa ñu naan la bisu gàmmu. Ah, bu waxtu sàngam jotee nga def lii nga def lii nga def lii nit ñoo dajaluy rafet rek naan mën nga ci jàng alquran mën nga ci def ay salaat ala nabi mën nga ci jàng burdu bi hmm. wax dëgg yàlla loolu yëpp noonu euh, loolu yëfu koy def la mais bu ñu delloo ci définition ibada jaamu yàlla hmm. euh, di xam ne kon gàmmu euh, amu ci cosaan la bu ko jàngalewu ko ko c'est des siècles hmm. ko inventé ñenn ñi nee ne sax c'était pour ressembler un peu ah. léegi nag <laughs> au delà de ça loolu moom mooy xam-xam bi loolu ah. gisuma ci gisuma ci dara lu ñu war a euh, traduire comme kuy xeex nit wala jam benn tarixa non non xam-xam moo moo moo tegoon nee naan Abdou Aziz euh, Amin dégg naa ko mu wax loolu kon mën nañu wax ne bidaa la dëgg la hmm. parce que bidaa mooy loo xam ni amul cosaan euh, ci alquran amul cosaan ci na te effectivement ni ma la ko waxee doo ko fekk foofu léegi nag te tamit amul cosaan ci jëfu yenn sa salam pendant des siècles ak ñi ko topp te ñooñu wax dëgg yàlla ñëpp mm. juboo nañ ci ne mm. lépp luy jaamu yàlla mm. dégg nga yém sa salam demul te waxul mu leer ne nii dañuy jaamu yàlla te tudd ci loolu loolu ñëpp juboo nañ nee naa la kon ay siècle après la euh, mu des nag borom xam yi am na ñuy wute euh, am na ñu wax ne bidaa mën na rafet mën na ñaaw donc am na ñoo xam ne foofu lañ dugal mawlid daal ne bidaa la bu rafet mais amul benn borom xam-xam bu sérieux maa la ko wax mm-hmm. bu bu bu bu bu d'accordul hmm. ci ne li ñuy wax mawlid ni moom bi daal hmm. xanaa kay léegi hmm. ndax rafet na ak rafetul foofu la ñuy wute su ko defee ñi nga xam ne ñu ngi koy def euh, nañu toléré ñi ko dul def te bañ a jàpp nañu ay wahabit lañ salafit dañu bëgg a yàq réew mi dañoo contre mag ñi alors que ay débat yu nekk ci téere yi balaa sax euh, génération Hadj Malick ay Sëñ Tuubaa et cetera débat boobu mi ngi fi depuis des siècles kon du question contre mag yeeg yu mel noonu débat bu xam-xam la euh, ñi nga xam ne tamit am nañ conviction mm-hmm. que ni loolu jarta def mm-hmm. ñoo tam nañ am tolérance bañ a xarab ñi nga xam ni euh, dañ koy def parce que pour ñoom am nañ argument yu leen doy kon l'essentiel mooy ñi koy def mm-hmm. tamit nañ fexe ba suñ koy def ñu dëppale ko rek ak loo xam ni euh, ànd na ak l'islam waaw jarul mooy dugg ci détails yi ci wàllu boobu